nuyoo bu baax baax tabarakallah ñu leen di ci bu nekk di ngeen yeewoo naka ngeen ko waaw ni nu ko yëgee rek mooy kenn ku nga ak moom baax nga ak moom yar séq nga ak moom dal surtout mu yor programme Sen TV nekk directrice programme kenn ku ne man ni ma ko yëgee maa ngi woon Ndiassane dama tek micro bi di lem sama ganam bubu, parce que dama nan comme damay dawal mënuma sol grand di dawal ci saa rek ñu tagge mako mais fi ma taxaw ñima wër rek xamna ñu ne amna luma dal dama ni allahu akbar ñu ni ma lan la ndaysan benn jigen layen la sax fi la dekk ma ko ah dañ ma tagge momi ñom ñepp lañu stressé nonu la duggé sama auto départ jaduma fenn jubal ci sen TV parce que ki ki dem ku reuy la ci ñun ku bax la ci ñun ku dal la ci ñun ku tabe la ci ñun ku ñu mëna soutenir la ku ñu jappalé la ci sunu mission ki dem moo tax ñu fuuy xam nga ñaata laa def seen TV. Mhm. cinq ans xam nga kañ laa xam muumi daaw. laa ko gis bët ak bët walla daan naa ko gis mais kañ laa ko gis xàmmee ko daaw bi ñuy defar ay ndogu laa nuyoo rek romb ko tourné ni Fatou Abdou Fatou Abdou Ndiaye mhm. Fatou Abdou kii kan la mënu ma yow sa patron muumi moo toog nii ma ni ma ni xoolal koo xam ni yaay patronu des médias sa borom kër a ko moom am na jigéen ñoo xam ne bu doon ñoom subaak ngoon gu dégg bëccëg ñu ngi wut ku ñu gëdd ñu ngi wut ku ñu wàññ ñu ngi wut ku ñu nàngam mais moom it buy waxtaan ak yow sax ci dara mën na la ko imposer parce que dañ lay fay weer mais li muy njëkk a def balaa mu lay woo téléphone moom it dafa lay message ne la est-ce que mën naa la woo bu la déranger wul nga ne ko ok mu woo la buy wax ak yow day mel ni daf lay neexal gëmewu la pour nga defal ko loolu kooku nag boo ko ñàkkee foo jaar sa loxo aju jëm ci sa gémmiñ nga ni e eh, ñëpp e eh, boobu la ñu yeewwaale ku def témoignage jooy xam ni ñàkk nañu koo xam ni wax naa sànq ni suulaguñ ko de waaye ruu bu baax dem na ruu bu dal dem na ma ni du yàgg léegi mu war a fekk way juram waaye day fekk baay bu ko bëgg waaye moom itam baay baay baay bu ko bëgg doomam ngi koy fekk si waaye soxna soo xam ni xuma doo amati de waaye wallahi mel ni moom mu mu mi balaa jigéen di mel ni moom trois coins yi ko séq benn bu ci jigéen am dina beew doomu coon sekk laa sa baay ñëpp xam nañ ko kon war ngaa fuuy magu sekk laa mënoon nga am nooy wane woo mais soxnay buggaan gëy dani la muy trois yoo xamante ni kenn ku nekk rek waroon na jar nga tiitoroo ko mais est-ce que mos ngeen dajeek moom ci site internet yi yéen ñi nga xamante ni yéen a yor Sidi ce que mës ngeen ko dégg ñu partage ko ci détail wala mu wax teg teg comme yaayam kàddoom néew na jëfam bari na mu mi daal lenn rek da ngay ñëw buntu seen TV fekk saag bu tege ñu defal la ci ay jeesneer ay couleur ngay wàcc visile bi ne la oustaz euh, am am mbuus bi nga ne ko pour lan la wala saag bi mun la muumi moo la ko jox jël enveloppe bu xaalis roof ci biir pour nga ñaw ko yenn saa yi ngay wàcc day xam sa heure cak cak egsi taxaw na nga def nga ne ko maa mu jël mbuus jox la wala sak ni la muumi moo la ko jox jël enveloppe teg ci maa ngi wax léegi ni len même message bi mujj daf ma ciy ñaanal même pas semaines nga kon ku modem moo dem ku yaru problem dem waaye ki ëpp problème ci dem gi la bu mënee gérer TV kon nga xamante ku maîtriser borom këram la wax ko bés dañuy waxtaan man ak moom mu ne ma oustaz man de buggaan leen rek moo man a xari ci moom politique ma ne ko mais sansam la te war na politique mu ne ma bañu ma mu politique waaye dama bañ koo ko saaga te politique faw ñu saaga la faw ñu xas la te bëgguma ko ko saaga bëgguma ko ana yàlla xare ko aljana kooku moo dem mhm. a marqué tey si moom li ma marqué ci moom dafa bari waaye bokk na ci li ma gën a marqué ci moom bés ñu am plateau xam ngeen plateau grand plateau am na ci euh, weeru euh, at mu jot am naa ci koo xamante ni day dugg su bàyyi la ci ñun kilifa la ci ñun xam ngeen ko bu baax baax damay tur gis nga man ak moom bu ñu waree daje grand plateau day ni fin ci waxin bi mu ren ni buma ma bokkee ci plateau bi du bokk loolu la wax ni bu ko leeree ni damay toog ci plateau bi moom du toog. ki ma leen di kilifa la <clears throat> moom yi ma oustaz loo xalaat ma ne ko moom yi man dañ leen xamal naa la ko mooy bu ma dul toog plateau bi moom jàppal ni grand plateau yi des du ma toog ma ne ko bi ci des mooy lii grand plateau la invité la day mën toog ñu gérer ko mënu ko keneen ñu invité keneen mu ne ma ñëw na ba pare te moom moo nekk ci pib bi ma ne ko ah damay toog ma jug ci siège yooyu ñu defal ma siège spécial ci côté bi man ma toog dend ak waykat yi mu ne du toog ci siège bi ki invité parce que waruma tiim ñu koy wayal damay toog ci suuf man leen muy neex muy naqari ci 16 bii laay toog tiim ñu koy wayal ñu xëccante ma ni duma dellu ginaaw pour wax la mbaxam dama ñibi sama kër rek 3 heures 2 heures du matin 3 heures du matin mu message ma ni ma est ce que mën naa la wo ma ne ko d' accord mu wo ma ni ma oustaz yow kilifa nga sen TV do employé bi ci defar bi ci des lu bari yow yaa ko war a defar am na situation yoo xam ne war nga ko mën a gérer ci mbaax wax wax wax wax ba mu ne ko maa ngi jéggalu bokk na ci li ma gën a marqué ci moom ma ruus ko ci ba grand plateau yenn saa yi damay ñëw toog ñi fekkee grand plateau xam nañ ñu tax ñii ñëw ëpp saisi ma jug man sans place ni diw kaay nga toog bàyyi ma may la nga doxal tey parce que nit ñi xam nañ ma ma toog yokku ma ma ñàkk toog yokku ma man noonu lay génnee dem ñibbi yenn saa yi mënu ma waroo waroo waroo waroo jóg parce que diine ji mooy tax ma ne ko mais am na koo xam ne bu ma jugul may ko keneen du xalaat jóg may ko bàyyil ma may ko. ngir sagal ko parce que acte ci la la nit di soppe loolu marqué na ma lool lool ci moom ak ak ak yàggul dara mu yónnee war ma ay tisi comme ni ma koy waxee di ma tooñ naan ma xamoo tisi bi def fausse nay gër la ma ne moom nag tisi bu nekk sol naa ko bii moom solo gu ma ko mënu ma dama la ko defal addiyee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te ma daanelee benn mooy gis nga allahu akbar diggante juddu yonent bi ak ngéntali comme ni mu demee xam nga démb la ngéntali moo tombee nag anniversaire bu gaan daaw mu woo ma waa grand foo nekk ma ne ko dama nekk ci ay service parce que dama doon ragal mu mu aariseraloo ma dara fekk sonn naa mu ne ma mais Bougane day def anniversaire am tey ma bëggoon nga ñëw ci ma ne ko yii moom instant yi damaa xat mu ne ma noo jàpp ci la rek ma ne ko noo jàpp ci mu ma lenn rek laa bëgg nga ñëw tàggalal ma ko yonent bi loolu kase kase kase laa bëgg nga defal ma ko xoolal timis la ma waat ni ma mais yow foo nekk man ko mais damay xaar nga woo ma mun waaye départal waaye balaa gâteau bi di ñëw xoolal ma départ ñëw fekk fa ay kilifa mais mu traité ko traité bu rafet rafet mel ni daf ko doon wan ni ko dernier feet bu ñu war a feetoo ñun ñaar ñu ngi nii def ko comme ni naar yi def seen xayma yi ma pare mu ni ma taggal yonent bi ma tagg yonent bi ba mu jooy fa jooy yu metti may ma xaalis yaayam noonu goroom noonu soxna yi waaye ñëpp toog ñëpp def teraanga bés boobu laa yaakaar ne mooy feet bu mujjee feetal borom këram xoolal heure boobu net net net net bi ñu nee suba la ngéntali wala bésu ngéntali ci la wuyu ji boromam. entraîner ab feebar ndax doon na ngeen ko liir ci kanamam vu que moom amoon secret la. waaw man xam naa dafa feebar yàggul du ma tudd tur dernier vocalam dernier vocalam ci groupe bi bi mu vocalé am na koo xam dafa jooy bi muy wax ak man dafa ne ma oustaz te man automatiquement xam naa ni force am jeex na parce que ni vocal bi demee ni baatam diree ko sànq rek maa ngi at vocal boobu mooy wàccaayu gàmm bi ñuy def groupe bi mu dugg ci di joxe benn xalaatam ne nañu defee nangam dernier jour bi dernier jour gàmm mais vocal boobu daf ci am koo xam ne dafa jooy ni ma o oh, mu mi feebar na nag mais gis nga li muy feebar feebar yëpp mu ngi doxal programme bi parce que feebar bi mu naa wax ni doxalee na ko ay at mais du feeñ ci waxam du feeñ ci jëfam mais am na feebar yoo xamante ne duñ dellu ginnaaw bu nit ki di wax te nga miin kàddoom 100 pour cent rek di nga xam ne feebar bi na ko mais dund na personnalité mais itam wuy ji na boromam ci personnalité. Mm-hmm.